يا من أتى بخلاص خلاص خلاص ويكو بك سيد بابا كرد فلني لما دفرواي لحق لا لما بدي لك مين يوتركو فاي خندرا اي باي اي باي وجدت ما يجيب السنن والقرآن من طيب طيب طيب زينت مسجد مسجد على خير البرية يوم فأنزل الله في أمدحي زورا من بعد النبي خفف تفسك جلدني وبحر علمك يكفي الناس سافر يربعي سياني في غرب الميت السمراء من بعيد yaa jël jàpp xam-xam xam-xam may ko wax mbaa yow ju fi anam ataxa ataxa ak mantal jami aw ak yow baay an taxta min amalin amalin علما تزرع كل تقوم البايع وبالخلاص الله وبالممدوح أحكي لنا يا رمضان إخلاص يا ربي وتوفيق واليسرى من معي وحدة مدير أيام مجال سبعة يا الله جيبك waxta ma jëlee yëpp a dogoon man ci seen way dafa si daani waxta nga teewoo te teenu daf daf caméra xëy sa te teen ba ngir kañaa yàq boo waxta ci loxo ci taal yi joxul nii ñu waa gën la wàññi moo tax talaata 27 juin 27 juin 1922 ci lu Cheikh Mame Seydi loxo ci taal yi nee na ku sab sa xalima sam sa ci taal bind tibbit doo ci lool doo ci lool sa daa sàmp bàyyi sa xalima yàmb sa xalima yàmb kon وداك العالى ببرخة المادي ويقوم أتعوى احتسب فيها باسمه وما خير الليل ولبى وفرتا وما خول كني بل اسمع وما حدنا وأنت تذكر المخانة ولا تتفكر كيف تجأت سيدي لدى رودي والخط أسألاتني ولا تتفكر كيف تجأت عريسي jadi bapak ini jadi gay gay gay gay gay gay why gay wadifa ay wadifa aku gay yang al-Quran gay yang al-Quran aku sabku sayyid haji fani sarap kandang haji sarap dan jawab mai sering kamu Allah dan sekali ada video ini dan jadi main jadi dia bukan aku aku aku الألباب وأد حصة الألباب dokokaci ai dokokaci wafina tafajawo tafajawo tara sadakwate madabar jadi sallai maru amin ru amin ru amin masirin min ajati ajati خليل يديني يديني سمي لمحمد قد وضعني man lii wa man lii ku defu lii seen maam a borom gàmm yëpp nii moo man lii wa man lii ku man mi yàgg laa mi moo man ku man ki teewal ordu yeeg gàmm yi ta moo man lii wa man lii xam ngeen ni bu boppam ku man Maodo ma ñaanal ko foofu ne ko biirut fit yaa ilaahi bando wada kun xalilu muflisun bi saduqiyaati bal idaba bika jalilu sabbuhu sabbu alazim tawxini sabbu alazim ibnahu شخص عليم تسليم حسب زميل من عصيان ونسيان وزهو وعدنا انت افتح شغل فضل وانت افتح الجميل العنايا وفي ذنوبي اسم ربي لا يعان كف عني كل ذنبي وسحبي سمح جميل كيف حالي يا الهي ليس لي خير الاعمال سوى عمل الكبير بعد جمال الخليل عازمي بكل الجمال وأقضي عن الحياة إنني قلبا شتيما أنت من يحس في الخليل ابن نار أفرديان ربي فيه حقك ما مدخلنا نار كوني أنت فيه حق الخليل أنت الشافي أنت الدافي في محبة في الأمور أنت ربي أنت حسبي أنت لي يحفظ الدين يحفظ بحجمي تكسى فضلي أنت وأنا كن كريما أعطني وفي ضميري جملتي خير الدليل وغني كملي سر سيد الحاج مالك وغني بإخراج الخير خير عاصي وغني ودار في مرتدي وطني في نجم وتجوم وموصل وصف سيدنا محمد جبل تقو سيد الحاج مالك يا مسل حرايدان يا مسل زيرة المدرب القوادي أسالك حجاجة يا خالد حور شهادة فبدر ثم بدر لمهتدي حب المرتدى فالمرتدى كبير حمد لله برج الله يسر هو سيف كان من عبد الحميد كان دون مهما زلم كانوا مهما زلم كانوا الفردي سيداني محمود عمر ومحمداني أتعلم مجيبي صحبتك متسايا يا سيد الرسالة ودود فما جلم عثمان بريم الأكيل أتي ابن عثمان وعين محمد فكنت أبا بكر أخذت أبا الإمام تغلق بابا كل المامد كل مدرك البكر لقد تقول مدى تجرب لمن يخصمنا نسلم على xaram da gàcceel wax si wër na yàlla alhamdulilah yow yaaram bi kenn bañu la sëñ kenn bañu la alhamdulilah ah waaye yaaram bi kenn bañu la sëñ Saliou kenn bañu la na ngeen ma déglu te sellal xol yi xam lu nekk xam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 ku ñàkk sëriñ Saalu ah sa xol jooy sa biir bi xol jooy ana ku fi gën a bëgg sëriñ Saalu Mbàkke borom jàpp naa borom xam naa borom la ngeen ak dookal sangu fi bi ca jom naaru moom tàbbi ca borom jaama mooy ah. jooyal ma junni bi ak saaw aja moom ba ta jooy borom jiri ku ñàkk saaw aja sa xol jooy sa biir bi xol jooy jooy sa xol jooy sa digg xol jooy di gën a bëgg naa Cheikh Ibrahima Fall la fubabil muridina ma dégg te ma biram te géej ci rambaay pour dëkk bàyyu la ma faal ma dawul fat ma yaasin kii ci moom waaw waaw waaw ana soppe Cheikh Ibra Fall ñu waay Ibra Fall ñu waay Ibra Fall ñu sa jëy fàtte penda na soppe na doon jëy ana ki bëgg maam Cheikh Ibrahima Fall waay di sa jëy fàtte penda na soppe na doon jëy جميل انت في جيبك فمن انت لو كسبت ما يصدقك مفعل لعب فين كن ست ما يصير مدوار موي ديبا موي مزل يان زودا كم بك سيري لو حد فوق دي ست ما يصير مدوار Bye, Alhaji Bara. Boy, bye, the Subhanaka la subhan bu bëgg sëriñ fa mu di fo ak ma sa bay borom lu ko tëgg bu bay borom turu bay sëñ Cheikh Zahari wa bay Cheikh Moutala Cheikh Sami bay sam ci bu may gani te defal nga lu la gën ci ñëpp saa yu la jaaxle bopp la ko dafa jàng ni ko bir yaa yaa ca man di lay loo bay borom la gën laa waaw waaw ku bëgg bay daan loxo ku bëgg bàyyi daan loxo ku bëgg bàyyi daan loxo ku bëgg bàyyi daan loxo ba sa lay borom sa tëb mooy borom dirim bay si rek saay waaw bay seex mu talaat seex saaliw waaw kay tabarakallahu tabarakallahu doomi jégalu yàlla jégalu yàlla kay jégalu ñëpp rek jégalu ñëpp lépp lu jub loo xam ne ci yàlla la la lëngir nga xam ne ci ñun ndongo yi moo na bon tey jéem ci ñun la yàq ba mu ne damaa daanu moo tax wallaahi bëgg na woon sax way yal na yàlla fay yow seen bi yàlla commencé téeméeri